dalena leen ak jàmm bi di TV ci san 2024 bi ñu nekk kii di Aliou Cissé di entraîneur équipe nationale bu Sénégal ginnaw ba muy amal ab conférence de presse amna suñu benn natango journaliste bu ko posé ci question ci salaire buñ koy fay ci réew di Sénégal. Eh, vous m'excuserez de poser une question un peu décalée compte tenu de de votre statut on a lu un peu partout que vous étiez à six mois sans salaire est-ce que le Sénégal a pu régler cette situation ou alors c'est un entraîneur qui a Merci de rester dans le match. Merci de rester dans le match. S'il vous plaît. Je me suis excusé. La règle, c'est de rester dans le match. Après, il y a les... Voilà. Je vous dis la règle. Et puis après, s'il veut répondre, il répondra. Mais la règle, en général, restant dans le match. Donc, donc, je finis ma question en disant est-ce que la situation a été réglée par votre pays ou alors c'est l'entraîneur qui a faim qui conduit le Sénégal à la Coupe d'Afrique des Nations Sinon, nu naataango journaliste bi laaj bu mu laaj kii à Aliou Cissé moom mooy que ne ñoo ngi léegi ci journal yu bëri que ne mon moment di Aliou Cissé moo ngi toog lu tolloo 6 six mois. maanaam juróom benn weer yi nga xam ne ne jotu ci salaire ci réew mii di Sénégal kookee di suñu naataango journaliste bi daldi dinay laaj kii di Aliou ngir mu dëggal ko li ndax am na waaw wala déet si li ni nañ ànd daal di siy déglu tontu kii di Aliou Cissé. C'est un entraîneur qui a faim nationale Sénégal. nag kii di Aliou ci daal di tontu moom mooy que entraîneur bu xiif moom mooy coacher équipe nationale bu Sénégal loole lu muy tekki rek mooy que ne kii di Aliou Cissé daal dinay toog lu tollook juróom-benn weer ci réew mi di Sénégal te fayuñ ko lu ko état bi war a fay te muy saleeram bi nga xam ne ne méritam la ñaxam la kookee nga xam ne ne moom moo njëkk a andi CAN Coupe d'Afrique ci réew mi di Sénégal kookee chaque weer dañ ko waroon a fay salaire am comme niñ ko doon defalee entraîneur blanc yi fi nekkoon. waaye ci ministre des sports boobee nga xam ne ne ba fi kii di jatara remplacé woon kii di Matar Ba kookee ne pour réfectionner bureau am rek daal dina si dépassé lu tollook quatre-vingts millions ñooñee ñoo ne mënuñoo fay entraîneur équipe nationale bu Sénégal li muy tekkiwaat rek moom mooy que ne état bu Sénégal priorité musu see nekk moom ci détail rek lay nekk ci di jéem a éliminer ay adversaire am si loolu lay rek lay nekk. waaye ñi nga xam ne dañoo am mérite ñu war leen a décorer ñu nekk ay héros national ñooñee sax état bu Sénégal du leen lijjanti.